xam ngeen ne weeru janvier atum 2018 euh, guddik juróom-ñeent jàpp fukki fan euh, tiisoon na lool ndax si la ko borom bi subhaanahu wa taala woo ñu war a dikkaat ci jaar-jaaram euh, war itam xëy na am yu bari yoo xam ne dana ci feeñ si si sëriñ bi ma am mbégte lool dalal si sëriñ jiili Mbàkke waaye bala ñuy ñëw ci sëriñ Jili Mbàkke dañuy jox sëtam sëtu Cheikh Sidi Mokhtar Mbàkke di sëriñ Cheikhouna mu am xëy na ñàkkul ay seede yu mu a indi euh, si maamam ju tedd jooju ñuy waxtaanee sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte jox la kàddu si si waxtaan bi ñu jagleel tey sa maam Serigne euh, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. ok soxna si ñu ngi lay fay nuyoo euh, di la sant di la gërëm ci déplacement bi. Hmm, li nga def nii am nañ ci mbégte lool. waaw sëriñ bi nag moom ak dundam xam naa liñ ci xam bari na waaye dañuy tënk rek hmm. waaw fi ñu tàmbalee nag mooy sa njëlbeenu kàddu waaw donte nekkatu fi waaye mi ngi fi ndax jëf jàng fi nit ki day dem waaye jëf moo fay des waaw benn la ci jëfam mooy dëkk bi ñu nekk tey muy ndakaaru di fi waxtaan waaw mën naa ne symbole murit bi fi bi fi gën ëpp doole muy symbole juddu murit jullit yëpp la muy Masaalikul Jinaan ji dëgg la am na ñu ko neseroon waaye ci jëfam loo ko suñu borom sottale waaw ci la ko suñu borom sottale kon euh, dund gi dëgg la suñu borom dund gi amatul ci saayir waaye jëf ci moom mi fi kon mi ngi fi ba léegi moom it euh, euh, muy nit ko xamante ne si doomi Sëriñ Baara la ak ku ñuy wax soxna Mati Lay bokk ci foofu baax a baax sëñ Baara tudde woon ko ku ñuy wax sëñ Cheikh Awa Balla mu yar ko Euh, ba dëwal ko kër fu ñuy wax Tambédou muy kër nijaayam mm, mu nekk fa nag euh, dafa jaamu yàlla dafa liggéey ci njëlbeen nag mu metti woon lool lool lool waaw euh, ku ne xam na ne bi mu fi bàyyi ko fii di Masaalikul Jinaan ay milliards la ci def waaye ci jamono boobu ba mu koy dund metti woon na lool danañ xëy sax ci suñu nopp lu ci lum ñu doon nettali. luñ taal sax du fa am waaw. ci ban jamono. Euh, ay 1947 yooyu jàpp 48. Mm-hmm. nga xamante ne si euh, mas naa denc rek ñeenti kilo ceeb rek. nit ñëw fa. yëkkati xasida gi ñu am wax ba mu jeex. Mm-hmm. mu sukk ci kanam ne ko mbàkk di kër ga dara nekku fa. Mm-hmm. mu yëkkati ñeenti kilo ceeb jox ko mu dem. te moom la dencoon. pour kër gi. waaw moom rek dencoon ngir jox ko njaboot gi waaye nit boo defee te yàlla tax yàlla moo dal daldi wuutu ak jëfam nes kii si tournant woowu ñuy wax suñu saa jëm dëkk bu ñuy wax Mbaba Garaas daanaka jaar doon xool sànc rek wàccal ko cinquante kilos ceeb. Mm, waaw yàlla moo mën fay. waaw maa ngi fàttaliku kenn ci njaboot koo xam dafa sëncoon ab dëkk. ba mu sancee dëkk ba ñu sonal ko fa lool mu dellu si waat di ko di ko leeral daal ne ko man kat fa ma nekk bokki dem nañ ma fa xaw a lool sëñ bi na ko yàgg kana kana fa ne mu limal ko bu mat juróom-benn nit suñ bi ne ko yaa ma ëppale ñetti nit man fii bu ma fanaan ku ñuy wax soxna say sax mooy ab aawam ak ñenn doomam ñu ak benn tëlem rek la àndal mu ne ko lu muy fi dajul amut ña ma doon sonal di ma def loolu lépp tey ñëpp ngi ci suuf. tey suuf sëpp ngi sama loxo di ko wan jom di ko wan ne ko nit ki lu muñut foo xaru dara dara du la fa fekk waaw waaw yëpp nag ci ci jom maam ngir wax ji bu la koy wax ngir jom mooy tax waaw li may bëgg a wax nit mën naa koo wax te yoonu ma yaakaar naa yaatu na lool mas nañ toog guddi di waxtaan mu ne ma léeg kilifa ñëw fii guddi am lu ma wax maam li ñuy wax lépp daal ma yëkkati jox ko daan ne man addiya lay fas ci sama xol su ñëwee ma xamee ko ci moom bu dee ma xam ko ci moom nga xam ne ku ku ku woon ku xam adduna la daal ne ma daal ne ma ñi ma bokkal su ma fàttalikoo bu weesoo suñu Cheikh Balla moom menum suñu Cheikh Gaynde Fatma moo ci ma yëkkati jox ma ko loolu 1947 la woon. tournée bi yónnoon ko tournée bi yónnoon ko Taïf suñu Cheikh mu ñëw ci suñu Modou Moustapha 1940 déedéet 1930 1943. 1943 la woon euh, sëñ sëñ Saba Balla jonoon ko Siwul Moussa bi mu ñëwee ba Touba euh, fekk dem waaye dem. moo ne ko da ngay bàyyi ba fajar bu fajaree am na yu ñuy wax baax la dañuy dem tayif dañ lu yóbbaale. wala yàlla dogal xam naa euh, mel na ne yëf yi dem bàyyi ko ci la ko jox jox juróomi dërëm daan na ko xam naa dañ lay tegal tegtal yoon wi. nga xam ne bis boobu dafa doxee Touba ba Taïf bi mu fay delluwaat 2007 ab cortège moo ko dar muy Serigne Bara boobu waaw waaw moom daal moom li xam ci moom euh, bari na bari waay goo xam ne daal wax dëgg yàlla moom xam naa daal buñ fi toogoon yendu fi di kii. du jeex du jeex. bien ñu ràññee woon ko aussi ci noppi. Euh, amoon na dal lool lu bari day xew sëñ bi daal woon ñu won ñu yar ak maandu. ak dal goo xam ne yéemoon nañu bare bare bari xëy na kilifa yëpp am nañ dal waaye moom sëriñ Sidi Mokhtar daf ci ràññeeku lool ndax bu weesoo muuñ ak ree daawuñu ko sax dégg. Mm-hmm. loolu it ci li nga xam ne mooy nit euh, dëgg la euh, nit boo ci nekkee nekkee gi doomu aadama yi doomu aadama yi da a jaxasool mm-hmm. waaye loolu yëpp ci ab jàngaleem ci ak noppam mooy daana waxtaan bu baax du xàq rajo ca kaw mm-hmm. waaye nag nit. bala nga àgg moom fenn fi da koy jàng ndax asgor boo duggee ci nit sa ngor moytu la nga génn ci moom loo ca man di fekk mm-hmm. loolu nag kon boo dugg ci nit danga ko war a jàngat mm-hmm. waaye dal googu ak ragal gépp ak gi ak noppi gi lépp mm-hmm. ci ragal suñu borom rek la ko teg waaw ci ragal suñu daana wax ne bu ak noddu jibee na mel ne dañoo jël paak teg ko ci sa put mooy bu lëkkatee sa baat bu na dëgg daanoo na mel na mel ne na mel ne nañ la sa kër sa kër ngay tàkk. Hmm? waaw xam nga nit bu ñu la fekkee nga toog ñu la sa kër waaw nit nit bu ñu fekkee na sa kër nga bu ñu la fekkee sa kër ngay tàkk. daw doo ko sol mu ne la soo waa nag dawal rek wuti jàkka ji. Hmm. waaw nit ku nit ku dal ku ragal yàlla ku ragal àq. Hmm. waaw li nga xam te ne si tey jii mooy yoonu murid nga xam ne. sëñ tuubaa dafa liggéeyal suñu borom suñu borom fay ko ci jaam ñi ku ne xam na ne bi ak sëriñ ba lam lam la muy jëflante moom mooy liggéeyal ko téendu ci fay ko bi ak fay suñu borom waaye tey jii képp ku mos a jox ndigal li may wax nii ku mos a jox ndigal day liggéeyloo dara mm. nga jël sa ñaq di ko ca def dana jël aw ñàqam suuf di la ko jox te loolu ñu bari xamuñu ko te loolu lépp ragal ak moo ko moo moo moom xamul rek nga koy defar rek muy jël naan dama koo yeyoo. koo gis mu fi mu mu sant ko obligé di ko liggéeyal mi ngi jël ko jox ci suuf ko ak taalibe ak ak buntam Serigne Touba. Mm-hmm. day jël di la ko jox suuf waaw. loolu nag ak maandu ak ragal yàlla ak dal daan wax sax naan yàlla nañu yàlla may ak tal ak dal mm-hmm. waaw ndax daan ne ak dal boo ko amut. doo mën a xam ni ngay wëndeela sam xel ba xam ni ngay doxal sa àdduna ba amatul dal doo ko xam loolu lépp ak dal la ak dal mooy maye tey jii nga mën a toog xalaat ne man ka li may bëgg a dugg lii laaj war a def nii laa ciy dugg nii laa ciy génn loolu bu amatul dal mooy li ñuy wax patience boo amut ba xalaat ci xalaat wér ba mu jox la lu lu lu tegu soo ci duggee benn rek rëcc mën na ci am njuumte mm-hmm. loolu moo moo ma taxoon mu naan jàngale ak dal ngir maanaam nit ki xam ni muy fi muy jaar addunaam ak fi mu ko doon ni mu ko doxale dara du jib rek nga ne damaa war a wax naa wax. waaw wala dama caa war a bokk naa ci dugg. waaw ndax yaa war a wax a kat. bu fekkente ne day tax lu tuug nga wax. Mm-hmm. da nga wax looy réccu. baax mm-hmm. nga wax luñ lay xeebee. alors diggante maam ak sët ku ne xam na ni mu mel euh, sa maam la euh, ñàkkul am nga yoo dund ak moom yoo xam ne sëñ Jili Mbàkke mii may bëgg a waxtaanal dund kook moom xamu ko ci moom tey euh, xëy na génération yi ñëw war a xëy na dégg émission bi boo leen doon misaalal sëriñ Sidi Mokhtar Mbàkke ci diggante maam ak sët nan nga leen koy misaalale xam nga man moom liñ naan audi mudut mudut mudut mudut seede ci aw ci aw ci ci aw bëy man daa mutul seede ci moom ndax wax dëgg yàlla dafa nekkoon sama xarit lool lool lool waaw mën naa ne sax ak njabootam ñim jur fa mu fa ma wax dëgg yàlla yàlla rek xam waaye sama gis-gis sama xarit la woon daal waaw passeport bi diplomate bi ma njëkk tukkee moo ma ko oto bi ma njëkk dawal moo ma may moo ma yóbbu màkk may may pàkk defal lépp waaye nag comme li ma la wax nii lool lool li ma ko doon yombalal yombalal li li ma doon fii léegi ci mbirum Sëriñ Seex maam jom jooju la ma doon jàngal dina war àdduna kat dëgg la jamono yi ngeen taseel xëy na yomb na waaye yombul waaw suñ jamono li mu nuru lu nii suñ jamono yi suñ jamono doom ëllëg moo koy gën a yomb nga xam ne ñun ñoom duñ ko jànkonteel bu ëllëgee kon euh, nga yàlla bu yàlla defee kon yàlla dénkale ak njaboot jom jooju da leen koy jàngal da koy jàngal kat du danga julli fekk fi lépp waaw kon da war a am jom waaw war a bañ a dépendre ci sa benn mbokk waaw ndax mbirum mbirum mbirum ab moom ma la doon wax maanaam dañoo waxtaan ak mbir mu ne ma maanaam nit bu la yàlla booleeg ñoom bu ñu xam sa solo bu ñu xam sa yët da nga leen bàyyi da nga leen bàyyi ak seen sago rek mm-hmm. waaw ci lañ dox di dugg di wax ba ci ay mbiru leb yooyu waaw yooyu lu bañoon la tey maanaam liggéey ak ak ak ak jaamu yàlla rek mm. lañu doon digal waaw ndax nit bu fekkee ne da ko bëgg yéen ko jàmm ëllëg ndax nit bu fekkee ne da nga ko mayoon lu mu gàtt gàtt juróom fi at ak nangam dangaa ñaan yàlla mujj ko gannaaw mm. soo ko mujjee gannaaw bu soñoon fa nga tegoon sa tànk ba agsi fi nga agsi foofa lay teg tànkam moo tax dañu daan soññ ci yu baree bari ci mbirum jom mm. ak maandu ak moytu ak tooñ ak moytu ay leb ak yu mel noonu waaw ak ak maanaam ab jotaay bu nekk nga njëkk fa mujj fa waaw maanaam ab jotaay nit ki dafay dem ci waxtu digg doom ba te boo demee bul fa mujj. balay waaw. Mm. ci yëpp waaw yooyu yëpp ci mbirum personnalité ak dignité la lay jàngal. Mm-hmm. waaw mm, xamal ne la maanaam bu bu nit xam sa yitte waaw ndax lu mu mën doon rek suñu borom mooy mooy mooy ci nit la koy jaarale waaye ci moom lay jóge. Eh, ne wax ne maam wërsëg. moo lu nekk ci jëwu gaynde ñoo yem ala kulli xaal day rafet rek waaye nit ki dana jot mm. wala mu ñaaw mm. xanaa ñu bàyyi rek nga am leneen loo ñu mayaat jeexale ko nag sëñ <laughs> xam naa ne maa ngi bëgg a ëppal de sëñ jiili ah, xam naa damay bàyyi ak sëñ jiili la ci des rek ndax nag maanaam mm. euh, buñ buñ buñ buñ ma kiyalee bi nag il faut que bàyyi suñu yaay loo xam ne <laughs> <laughs> waaw kon kay sëñ bi ñu téye ko fi rek <laughs> jërëjëf sëñ Cheikhouna Mbacké di sët ci sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké amoon nañu mbégte vraiment dégg kàddu yooyu mu ci sët ñëw ci ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñoo xëy na xamul kan mooy sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ngir gën koo jéem a xam xam naa ne tey mënuñu koo jeexal waaye ngir gën a xam ku mu doon euh, sëriñ Djily Mbacké euh, la ñuy itam jox kàddu gi di nuyuwaale sëriñ Bassirou Thioro Mbacké mi nga xam ne moo waral euh, waxtaan waxtaan wi moo ñu moo ak euh, sëriñ Ahmed Saloum Dieng euh, mi nga xam ne itam ci moom la lépp sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaa ngi nuyu yéen ñi ñuy déglu ñëpp di am mbégte ak kontaante ci gi nga dalal fii fekk ci kër Sëriñ Sidi Moxtaar fii ci Asalem hmm, saal bi ñu nekk nii di fi defee émission bi. moom la daan waajale ñi daan dem màkk ay yooni yoon waa màkk waaja nañ fi ngir seere ji Seydina Muhammad mm-hmm. Madinatul Munawwara sax la tudde sar bi bu yàlla dogalee ngeen fekk ñu fi ngir jàngat lenn ci ak dundam it jure ji ngeen ko jox rek ak it eh, ni ngeen doxe ba ñëw fi ngir xeeñtu ak mbaaxam ak ab liggéeyam loolu lu rëy rëy ci njaboot gi la mm-hmm. te gis na yow it <coughs> euh, def nga ci yitte ndax bi ñu jokkoog léegi ci ginnaaw man na ñeenti fan. Mm. te nga toog taaxeeru ba nga ñëw ndakaaru bi nga ñëwee fi tamit yaakaar naa yàgg nga fi lool. Mm. fekk ñu génn nga patienté wu temps bu yàgg sax loolee woon ni kon li ngay wut si ak di ko di ko xeeñtu si ñor na la. Mm. ginnaaw loolu nag ñuy nuyu suñu jarbaat bi nga xam ne sët la ci sëñ bi. kàddu yi mu ci wax mënutoon a ñàkk ndax bu ñuy waxtaanee ku baax moom dañoo war a yaatal ku nekk am nga ci wàll rawatina moom nga xam ne dafa woon ak sëñ bi sëñ bi fonkoon ko daan waxtaan ak moom ci yu bare bëree bëri am na sax yoo xam ne da dul mën a wax ndax du waxu rajo waaye daan fi ñuy tàmbalee daan ñoo ngi waaja waxtaanee jëmm joo xam ne moom symbole la ci senegal te bari na luñ mën a waxtaane muy jikko yuñ ko war a roye maanaam dafa bokk ci ñi àdduna soxlawaat ni ñi jamono soxlawaat ngir ñu andi andiwaat leen ngir ndaw ñi def royukaay ci moom moom mi ngi juddu 1924 la judd mi ngi juddoo Mbakke Kajoor ci weeru koor tamit ci la judd mu ngi juddu fukki fan ak ñaar ci weeru koor ca Mbakke Kajoor bi mu juddoo tamit Serigne Touba moo ko tudd. sëriñ Touba moo ko feral. moo ko defal boppam moo ko defal lépp moo ko moo ko moom fekk na fi Serigne Touba ñaari at. Mm. te moom mi ngi judd 1924 25 26 27 la sëñ bi ñibbi la sëñ Touba génn àdduna. Mm-hmm. mu fekk ko fi ñaari at sëñ bi tuddee ko tudd ko boppam tuddee tuddee ko tuddee ko sëñ Cheikh Awa Balla mi sëñ Cheikh naa doon wax léegi. Mm-hmm. sëñ Cheikh Awa Balla doomi borom daaru la. borom daarul moxti te borom daaru ak Sëñ Tuubaa ñoo bokk benn benn benn mm-hmm. nga xam ne mooy waajuramu góor nag mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine mooy ñetteelu doomu Sëñ Tuubaa mm-hmm. moo ko taawub tamit ñoo bokk ndey ak baay maanaam sëñ Modou Moustapha mi taawub Sëñ Tuubaa ak ki jur Sëñ Sidi Moxtaar euh, loolu rek kóllëre la woon gu yaatu gum sequ nag sëñ baaram sëñ tubaa ba waral mu fab doom tudde ko sëñ saxo Balla waaye bi mu ko tuddee ba noppi da ko yëkkati jox ko ko mu yar ko li nekk ci moom lépp mu def ko taxawoon ak moom diir bu yàgg yàgg yàgg ndax moom bi fi sëñ baare jógee fukki at ak am joxoon ko sëñ Seex mu yor ko jàng jàngal ko yar ko lu nekk ci moom tamit moo ko ci def mm. eh, am na am na ab yóbbul bu mag boo xam ne sëñ Baara ci wulis la ko kaske woon jox ko jox ko sëñ Cheikh Balla ni ko lu nekk ci moom na ko def waaye bu demee ba nekk muskàllaf nanga ma ko joxal gaal gi nanga ma ko joxal li nekk ci waxande bi waxande wi la ko wax euh, moom nag ñu waajal ko ci fànn yëpp yar ko jàngal ko mu nekkoon koo xam ne ni ko sëñ seen sëñ Cheikh naa mi waxe jamono dem ba nit ñi di ko xam Euh, am na ci nag yu yoo xam ne danaa ko corfati tuuti mosal ko nit ñi waaye duma ci jaar digg ba di ko nettali di dem sëñ bi ñu bari xamuñu ko woon ci njëlbeenam mm-hmm. waaye bi mu jógee ci suñ Seexu Balla ni ko suñ Seexu naa mi waxee dafa dem dëkk bu ñuy wax Tàmbedu diggante Tàmbedu Kër na ay seenante la Kër Ngànna bi ñëpp xam nañ ko waaye diggante boobu suuf soosu mm-hmm. sëñ ba dafa def lu mat presque ñeent fukki at wala fanweeri at ak juróom yu yoo xam ne ci turu yàlla rek la nekkoon doon ko wut nekk na fa diggante bu gàtt boo xam ne mm. ndawal mosul dugg ci gémmiñam mm. ngir turu yàlla woowu mu doon wut turu yàlla woowu tamit mën nañ koy junj allahu kun bi xaqi kun muhammadun kun fayakun mm. boobu la jëloon doon ko liggéey liggéey boo xam ne mboolem luy jaxasoog ay nit ak di toog ci seen biir ak di dem ci àdduna fépp di la gis boobu la ko bàyyi amul benn archive bu la mën a génneel fu mu nekk ci mbooloo amul archive léegi nag loolu li koy firndeel mooy loolee mu doon wut day baax ñu ñu ñu leeral ko diggante ba mu fa nekkee woon loolu yi dafa doon wut mm. moo tax te diggante diirub la mu fa nekk bi mu demee ba toog xalifa général de Mouride lañ koy soog a andi mm. nga xam ne moom biñ naan ko yaay toog xalifa général de Mouride dëkk boobu lañ ko jëlee mu ñëw ci guddi gi kon day baax nit ñi xam ne jamono àdduna dem ba këpp ci kawam ni ñi xam ko waaye ca lam nekkoon mm. moom ci loolu rek la nekkoon. wutul woon nit ñi xam ko. wututoon nit ñi xam ko même bi mu toogee xalifa général des mourides dinañ ci ñëw. Mm-hmm. comportement bi nga gis ci moom tamit mooy dafa da nga wax nga ko sànq da koo gis mu nekk ku dal nekk ku mm-hmm. mooy mooy nit koo xam ne dafa jàng àdduna ba xam ko. xam doomu aadama yëpp daana faral di wax ay waxi ikam yu bëree bëree bëri daañu daañu ko wax. Mm-hmm. Mm, dinañ wax ne fexe leen ba xam seen bopp bu ngeen di jàng àdduna. wala ngeen bëgg a jaxasoog nit ñi bu ngeen xamul seen bopp du sotti maanaam nit da ngay jàng sa bopp ba xam ko ba xam ni ba xam yaay kan ba xam sa bopp soo ko mën a jëflanteeg nit ñi mm-hmm. am na bis ñuy waxtaan mu ni ma ñu mu ni ma jiili mu ni ma ma ne ko mbakke mu ni ma àdduna di bu ñu doon tappalee ndomba tànk ndomba tànk bu ku ne doon tappal sa bopp mm-hmm. maanaam tey ñëpp yegg nañ mm-hmm. daal ni kenn koo gis rek wutal na bopp ndombal tànk ba takkal ko boppam waaye bu fekkonte ne ndomba tànk kooku nite ko koy tappal mm. kon kenn yeggul fenn daal ma li ma la ciy joxe misaal mooy gis nga mu ne man ab dëkk boo fa duggee mm. danga fa fekk ñeenti nit ñeenti nit ñi faaw nga fekk leen ci dëkk ba mm. daal ne danga fa fekk boo ne boo ne yulub ci dëkk bu mën a doon rek moo xam bu mag la moo xam village moo xam bu ndaw la danga fa fekk ñeenti nit ñu fa fanaan nee na danga fa mag danga fekk ku mm-hmm. xam-xam danga fekk ku gën a maandu danga fekk ku la gën a ragal yàlla mu ne ma nag lii yoon mooy dëkk boo dugg nga fexee laaj ñeent ñi ka lépp xam-xam nga fexe làq ngërëmam fexe koo xam mm-hmm. ci wetam mm-hmm. ba làq ngërëmam am loo fa roote am loo fa roote la ëpp ki la mag xam na loo xamut mm-hmm. ki gën a maandu fexeel ba làq ngërëm ki gën a ragal yàlla fexe ba làq ngërëm mu ne nag ñeent ñii bu fekkee nit daa dugg ci dëkk rek tépparle soxlawul leen na xam luñ koy jiñ ca dëkk ba ay pexe ko ko may ay pexe nga ko may ñu koy jiiñ mën naa dem bañ naan moom da daa nangam moom da daa nangam waaye luñ ko mën a waxal ci àddina ay pexe tax moom ñu koy waxal waaye bu jaaree fa mu war a jaar fekk laqul ngërëm yi ñee warta am mën a am baat boobu daana wax tamit ni àdduna boo ci nekkee boo boo dul muñ wala nga yàkkamti wala foo jëm lu ñaan la yow la yow sañ ko ko sol neexoon def ko mm-hmm. nee toujours ci suufel sa bopp ngay dëkk ne nit da nga war a xam fexe xam sa bopp nee na tamit xam sa bopp jërul nga naan jërut ngay wut ku la tagg ndax nee na gaa yu baax gaa yu ba gaa yu baax yoo xam ne tey ñu ngi leen di dégg tagg taxul ñu am bayra waaye dañoo dañu dañ dañ dañ leen a xam nettali seen i jikko waaye kenn taggu leen bañ am bayra mooy tey nit ki bari na ñoo xam ne li tax ñu xam leen dañoo wut ku leen tagg ba ni ñu xam leen waaye tey bu ñu doon def ku nekk sa jëf di la représenté kon yaakaar naa ñi ñi mën a waxal lu baax du bari kon moom ci loolu la nekkoon Euh, nekkoon borom makarimul axlaax wax naa ko ci benn taalif benn marsiya boo xam ne man mag ko marsiyal hmm. damaa wax ne bisimilahi maa ngi door man jili mbàkke sibtu lamin bàyyi faalu Cheikh Sidil Mokhtar mooy marsiyalati al Mokhtar boo ko xamul diglul ma wax la doom la ci Mouhamadou Lamine di sët ci maam Xaadim Rasul turam boobu mooy al hmm. ba nu ko tànnee yàgg na lool jiital ko ci kullal maxtar kullal maxtar mooy képp ku nu tànn rek moom dañoo tànn dañ ko njëkk tànn hmm. lii bi jaahi man la wax wal muxtaar moo di turam diglul ma lim fi ay jikkoom li ma ci xam laay bëgg a wax Cheikh Sidi Muxtaar ku baax la woon ku tab la woon ku yiw la woon booleeg noppi te di joxe di faj soxla su mu mën a doon mboolem jirim yépp a ngi jooy demuk Cheikh Sidi Muxtaar lu mu mos a ñaan teg nga ci bët nawet bi misaal la ci baykat yi sax xam nañu ne ñaan gi mooy almuxtaar mm. euh, daal di wax ne diglul ma xibaar fi ak demam talaata ca fajar la woon ña ko fekkee woon xam nañu ni ak ak Cheikh Sidi mooy almaxtaar xibaar ba tas tàmbalee siiw ku nekk naan man fu ma jëm bàyyi jirim yi dem na tey fu ne jëlee daal almaxtaar kon kooku ci loolu la nekkoon amoon na ay daara daar yooyu tamit ni mu ko daan doxale boo demee Mbàkke Kajoor am na fa daara boo demee Kër Ngànna am na fa daara boo amee demee dëkk bu ñuy wax taw feex ci wetu Daaru Muxti am na fa daara boo demee dëkk bu ñuy wax Ndindi Bugul am na fa daara ci wetu Jurbel. dundal na alquran dundal na alquran daara yooyu li gën a yéeme mooy dong yi amul benn dongam sëñ Sidi Muxtaar boo xam ne mos nga yor ab pot di yalwaani seeni seeni seeni seeni li ñuy waajal ak la ñuy lekk lépp sëñ bi moo ko yoroon duñu ko defal te yàgg na. kën nga na daara ja tey jii boo ko doon xool daanaka juróom fukki yi léegi mu mat te booba yàgg na te ndimbalul kenn mosu faa dem moo ko doon moo ko doon seeral boppam. Mm-hmm. te dëkk yooyu ma la wax yëpp fenn fu nekk am na jumaa ñu fay julli te ba fa sëñ bay dem booba yoonu suufu fa dem sax amutoon tey jii mi ngi nii lépp sotti na kon xëy na sëñ bi euh, day model te képp koo xam ne jàpp nga ni maanaam nit nga ko war a baax war ngaa référé waat bu baax ci moom yii yii ay jikkoom la maanaam mooy nit ku weeg woon la mooy boo ñëwee nuyu ko asalaamaaleykum mën la maaleykum salaam danan tekk diglu la dana boo ko seetee image yi ngay gis yëpp. Mhm. da ngay nuyu sax mu mel dafa ñàkk yitte déedéet. da nga naan da lay jàng yow mi ko nuyu ba xam yow. Mhm. yow ndax xam nga wàccuwaayu kilifa wala xamoo mhm. ndax bu la kilifa nuyoo yaa koy njëkk a wax wala war a wax wala yaay dirigé waxtaan wi yëpp méthode boobu yàlla da ko mayoon boo ko nee jàpp loxo rek danaan tekk di la diglu soo toogee tuuti waxoo mën la ana waa kër ga. te waxtaan wi tamit doo ko ci jiitu lu mu la laaj nga koy wax. amul tamit kenn ku la mën a nettali nii daanaa waxtaan ak moom lu bari di waxtaan di waxtaan di waxtaan. Mm-hmm. bariwul woon wax daal bariwul doon wax. Mm-hmm. daanaa waxtaan nag ak ñi mu war a waxal. waaye ku ci nekk ki mu war a waxal mooy day xam ki mu war a waxal di wax ak moom. ku ne xam na fi mu yem ak xam na fi mu yem ak fi mu yem ak ah, loolu de xam sa bopp la koy may. waaw moom li ko yàlla gënoon na may mooy dafa dafa xam doomu adama yi xam xam xam àdduna ci lépp. Mm-hmm. te daana wax ni bala nga ab denc boo ko yore di ko denc. da nga koy denc ko wóor. ngi koy denc ci ku wóor koo xam ne bu ëllëgee ab sampakub denc ñooyam sëñ bi daana wax ne lu ma denc wala lu ma samp danaa ko jarabu mooy danaa ko gëstu ba xam ne bu ma ko sampee du daan mosoo koo samp ndax nee na boo sampee nit tey ñu ni ah ko demee ne sëñ Cheikh naa bi de moo ko teg fii mm-hmm. bu la wanee ginnaaw diirub ñaar fukki at wala fanweer wala ñeent fukki at sa njuumte la ñuy toog di xaar mm-hmm. sa njuumte loolu boo ko defee dañ naan xanaa kii kilifa ko woon mm-hmm. moo tax danaa ko yare noo xam ne njuumte dana ko jafe lool ndax duma ma gaaw a samp nit ku ma yar tamit noonu kon noonu la yare woon ay dongaam ñu jàng lañu war a jàng xam lañu war a xam ay soxnaam yi nekkoon ci biir kër gi noonu noonu noonu la ñu mel jëfam nag bu ñu ko doon nettali tey da nga naan moom xanaa daa jëfal adduna bépp soog a dem da daa jëfal àdduna bépp soog a dem suñu soxnaa ju na ko sànq ci domaine boo mën a jël nag ci àddina maanaam masaalikul jinaan bii mu doon wax masaalikul jinaan alal yu bari ay milliards milliards moo ko liggéey waaye pësteefu boppam li nga xam ne moo ko doon jële ci alali boppam ginnaaw fu murid yi bu ñu ko doon xayma ci milliards moom li nga xam ne moo ko yëkkati ci àddiyee boppam jox joxe ko ci jumaa ji mm. lu bokkut ak li murid yi dajaleeg li ñeneen li jóge feneen loolu bu ñu ko doon wax tey jii da nga naan xanaa moom moo defar jumaa ji yépp ngir bëgg liggéey suñ tubaab bi ñoom ngir bëgg lislaam am ndam ci biir ndakaaru te loolu yaakaar naa bi mu yeggee ñëpp gis nañ ko mboolem mu daan jëfal nit ñu baax ñi ci jumaa ju fii ci Sénégal wala jàkk lu mu ci dégg dana yëkkate alalam fexe ko caa def te bu ko ci defee danaan bu ko kenn xam ne def naa ko ci kon moom li mu doon jëf lépp digganteem ak suñu borom moo tax mu di ko jëf te yàlla mi tax mu jóge jëf moom xam na ko mm-hmm. am na ci loo xam ne tamit sëñ Cheikh naa mi xam na ko te coor gu mu dëkke woon Sëñ Sidi Moxtaar dund na quatre-vingt-quatorze ans quatre-vingt-quatorze cent yooyu bu ñu doon bu doon xool lim ci wóorut boo ci génne ñetti weer maanaam lu néew ba bëccëg gu nekk daka daan woor bokkoon na ci li tax mu néew doole ba ci mujjëm ba ci weer yi mu fi mujj def da daan koor bay daanu docteur yi ñëw ni ko da dog sa koor gi mu forcé àggale koor gi moom mi mi ngi nii te ak ci rajo lay waxe macha allah waaw maa ngi koy soog a dégg. waaw ci rajo waxe te li ma lay wax nii lu leer la am na ci loo xam danaa ko sàcc génn ko. Mm-hmm. waaye li may wax nii. Mm-hmm. sëñ bi ci mujjam maanaam julli na ba tàyyi daanu ba mën naan la li yóbbu moom. Mm-hmm. ñëpp koo xam. te li may wax ku ko xam ko. ci néew doole taxaw di julli daanu ci la ko jëlee. waaw. te te daanu ba mu daanu woon la ca xew ñëpp ñëpp xam loolu nag du lu ñuy maa maa maa ko wax waaye du caagéen nag lu ñuy bàkkoo di ko wax wala lu ñuy lu ñuy wax ndax loolu digganteem ak yàlla la ak ña ko fekke woon te ña ko fekke woon sax bëriwul mm-hmm. xëy na ña ko fekke woon julli googa bëriwul mm-hmm. waaye sëñ bi julli na ay yooni yoon taalibe yi fekk ko ay yoon yoon ay nit fekk leen ay yoon yoon mu daanu ci biir julli gi mm-hmm. te néew doole ñaareel bu mooy dëkkee koor koor gi tamit yóbbee na ko ay yooni yoon yoo xam ne dem nañ ba ci bëccëgu weeru mu xam ci mu xam ci biir julli bi docteur bu ñëwee daanaka boo dugal ci koor gi mën naa am doo ngoon mu force koor ga. waaw ah, loolu moom. kon nag dafa joxoon boppam boromam. moom ni mu joxe woon boppam boromam sax ni mu ko ko sante woon noonu la ko joxe ni ko yàlla sante woon ni ko jaam nga te nii nga war a mel. Mm. amul lu muy layoog suñu borom ëllëg ndax euh, jox sa sa wàccuwaay moom nga xam ne moo la bind xam li mu ci yow nga nekk ca. Mm. muy maandu lewet euh, am yitte ci doomu aadama yi mën a dimbali. néew doole yi mën a yar di jéggal te li ngay yare nit ñëpp sëñ si Muxtaar ñi mu yar muy ay sëtam muy ay doomam muy ay dongam daf leen ëpp pëseef moo tax ñu wekk ko ñun ñii fi ne jàpp bu jàpp wuñ ko bàyyi ñun amoon na leen lu ñu doon xool si moom lu dul ndax koo xam ne tey diirub lim fi nekk bu ñu doon calcul a wax ak yow donte ne mooy sa baay boo ko doon calcul matut cinquante baat wala juróom fukki baat wala wala wala wala soixante baat yoo xam ne yéen a ko joxalante diirub lim la jur nga xam ne daaw toog yow lu mat ñetti minutes wala ñaari minutes. waaw loolee tamit li tax ñu nangul ko ko mooy dañoo dañoo ragal ni ñun dañoo dañoo gis ni lu ñuy jaay ñun. ci jaamu suñu borom ak njàng ak lu mën doon dañ koy fekk ci moom. moo tax ñu ko moo tax ñu wekk ko tey dañuy dañuy dañuy nit bala mu laa yar da lay jiitu ci lam lay yare moom nag yàlla dogaloon mu jiitu ñu. ci lim ñu yare kon daal modèle la ngi noonu boo xam ne xëy na sax nit ñi jamono dem bañ koy waxtaanee. mu siiw nit ñi xam ko waaye sëñ Sidi Muxtaar ñi ñi dëkkoon ak moom. Mm-hmm. nekk ak moom bokk benn kër bu ñu yeew benn ëtt am na loo xam ne làmmiñam wu ko tudd làmmiñam wu ko wax. Mm-hmm. loo xam ne tey bu ñu ko waxoon dañ naan nan la nit ku man nit ku mel ni nan la mën a nekk ci réewum senegal mm-hmm. ba noppi nit ñi xamuñu ko. waaye nag dafa yare ak njabootam ci làq ak nëbb te loolu la leen waxoon. man mii rek daanam wax ni ma ci ikam yi mu ne jiili mu ne mu ne ko mbàkke mu ne ma di leen bàyyi xel fu ngeen dem ñu jox leen cër ngeen ngeen ngeen jël cër ba mu jeex ne ma cër du dara lu du tegandaay mm-hmm. tegandaay kase la bu ñu leen ko joxee ñi leen ko joxoon na ngeen ko delloowaat bu dee da ngeen dem ci da dem ci jataay ñu ne ah bi ñëw na kaay leen tudd mm-hmm. imaam ak ñëpp nekk fa waa koñ ba ak ñëpp nekk fa nee na ana imaam ba bu nee na maa ngi nii ne ko kaay tudd cër boobu ñu la jox ndax boo ñibbee imaam baa fay des ak ñoom mm-hmm. ne ni ma noonu la ñu mëne ma cër lu mu réeree tegandaay la te nit ñi fi ñu teg fi ñu lay teg ne fii lañ la teg ab dañ la ko dañ la ko dañ dañ la fii rek lañ la teg waaye bul jàpp ni yaa maanaam bul jàpp ni ay mbaam lañ wala ñu suufe lañ ci sa ndax tey jii même taalibe bi jébbalu ci yow wala doom bi nga xam ne yaa ko jur wala soxna si loo ko yilif yilif soo ko defoon loo ko def yoon dal sa kaw donte ne yaa ko yëf kon kay liñ naan yaa moom sama lépp tegandaay la rek waaye nee na ab dof nag moo koy gëm maanaam moo koy gëmee noo xam ne day jàpp ni. yenu yëf yi rek waaw sëñ bi daana ko jàngalee noonu. <laughs> macha allah am na solo ñu dem ci Serigne Cheikhouna tuuti comme mujjee nañu ko poñe <laughs> may sëñ Jili tuuti mu noppalu alors euh, en tant que sët noo dundee tey ginnaaw Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. ah ni ma ko dundee moom mooy ci na ci maanaam wétal la woon boo xam ne. dana la wetal ci wet waaye nag bu dee ci wàllu ngor ak jom eh, am na wax yu mu naan wax yooyu xam ne dangay xam ne bis yi moo taxoon waaw su ko defee léeg nga demale ba am loo tiim waaye sa xel de dellu si waat ci kàddu yooyu waajal na ginnaawam waajal na ginnaawam waajal na ginnaawam ci maanaam du waajtaayu alal ju mm-hmm. bari jom fi bàyyi ndax lu mën a moom da ko daan def ci suñu borom lii sëñ jili mi wax léegi dëkk bii dagg nañ fi dagg nañ fi suuf ba tay jox ko ko mu jaay ko def ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaw daan wax na duma fi bàyyil doom ndono duma fi bàyyil ab sa ndono waaye naa leen fi bàyyil barke barke boobee nag kenn ëppale wuñu ci ndax ñu ngi faj suñu yitte di faj suñu soorale demuñu fenn ndax sëñ Tuubaa képp ku liggéeyal dana la fay euh, te liggéeyal na suñ Tuubaa ci jumaay Tuubaa ji lu jiitu liggéey suñ Tuubaa bi sax waajuram Cheikh Mouhamed Lamine Bara la njëkk liggéeyal ndax ndax kër fii nga nekk nii ñaari kër la kër gee kër sëñ Bara la nga xam ne ku fi nekkal sëñ Bara muy moom kum jur ak kum jurut yaa ko yilif mu defal ko ko guy mbind ca Tuubaa defal ko ko Mbàkke Kajoor waaw liggéeyal nañ ko ak kër goo xam ne pile de cent nanga million la Tuubaa ba mu àgg màggal Tuubaa jot ñu ñëw daan ko dalekat daa mel dafa manqué mu luye ay kër Tuubaa ñu dem ba màggal nga jàll mu ne kër gi ñu ma tabaxaloon ab sëtam tabaxaloon ko ku ñu wax sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mbacke Soxna kër gi du ko jël daan na kër sëñ Tuubaa la doom du ko dond sët du ko dond kër googee ba mu fi jógee ci loxol sëñ Muntaxa la nekk fi mu ne nii waaw waaye nag barke moom boo xam ne luñ fëgg suñu borom ubbil ñu ko defal nañu ko waaw euh, ndax léeg-léeg nga gis ci rajo yi yoo xam ne dañuy woot naa mën naa lii mën naa ñaan mën naa lii moom lim am suñu borom a ko ko may comme dafa toog tërbiyewu yor aw tudd ko tërbiyewu ba suñu borom may ko la ko ca may toog naa moom ay yoon nit di ko wax ko yitte ju ju rëy rëy du la ñaanal du la def dara daa la demal mm. maam nit ku nit ku nekk ci nit ku nekk ci coow mën mm. la mën a demal daañu ne la xam nga la gone ya wéyantu naan foo lépp doxe dara ju géej nga ko amoon la noonu lay mel. kooku kenn du ko tuddaat kenn du nit ku siiw ku ne ci réew mi ko xam ne doomi ab baykat la. Mm-hmm. li wax cancer des seins lu ma kenn da koo daloon ba ñu dagg ween mu ànd ak borom këram ab bu mag la jëri Sénégal ñëw foofa. Mm-hmm. bi mu ñëwee wax ko sëñ bi. sëñ bi ne ko dañ ko war a dagg kooku ne ko dañ ko war a dagg nii bu demee France mu ne ko ah def ngeen des na ko dagg dat koy ñaanal kooku bi mu delloo tubaab bi dañoo xool xool xool gis yi nga xam ne ko wax ne ko ki ko faj il la. ki may wax jom de presse bu mag mooy seen patron. jabari benn bu siiw doom jabari waykat bu siiw la. yoo xam ne leeral la lii jaamu suñu borom ak maandu. ak ñàkk Euh, ak ñàkk a ñeme àq. moo ko may lii. jubóog sa borom. daana dema dema dem ba euh, lim doon am lim doon bari bari bari barke. man ak gi nga xam moom lañ naan tal ci kër gi ci lan jëfandikoo moom. waaw kenn daaw ko beral njër. mukk boo xam ne doomu jàmbur yi ñu ma jox. dama lekk dara leen bàyyi waaw. waaw loolu loolu loolu yaakaar naa ne bëriwul ci jamono ji. Mhm, waaw ndax ñun ñii ngi néew ko dem sa kër léeg-léeg ña ngi lay beral ak ganaar mhm. wala nangam ak nangam wala mhm. yooyu yooyu doo ko def pour ci ñàkk a amoon li ko ko ñàkk a ñeme àq. ak xam cëru doomu aadama fa mu nekk ñu teg ñu teg la fa waaw doomu aadama daa xam ne doomu aadama ju sa ju sa bopp féete kaw sa tànk féete su boo ko gisee. ormaal ko ngir bind bi ko suñu borom bind noonu bind la ko yow. waaw moom boo jaaxasoo moom daal yàlla dina la dénk dénk dina la dénk jom waaye nag dina la dénk nga xam sa bopp doomu aadama ji gisit xam ne kii la waaw oyofoon na lool nag waaye nag ku amoon fulla la ndax daana wax ne danaa oyofal sama bopp waaye duma nangu ku oyofal waaw nit ki mooy nit ku nekk. oyofalal sa bopp xam ne jaamu suñu borom suñu borom bind nga rek waaye nag bul oyofal sa bopp ba. ñu ñàkkal la ku la gis waaw ku la gis war la mm, mm, nu ko neex mu ñaaje la foo ko neex mu fëkk lu yóbbu déedéet mm. waaw. waaw wax dëgg yàlla nag comme li sëñ bi wax. denc na ñun daan wax léegi daañu toog yor-yor maanaam lañ naan yor-yor 11h ba ay tisbaar yéen daan toog di wax. waaau bari na luñ xam lool loo xam ne du lu ñuy du lu ñuy wax fii waaw waaw ak waaw ndax waaw amoon orma joo xam ne léeg-léeg xam nit façon xam nit goo xam ne mhm. day toogoo yow wax ak yow ci nit kooku mhm. maanaam su nit kooku dikkee ni mu koy accueillir yow sa jëm bopp da nga naan xol bii mhm. kii ni mu kii xol bii nii nan la ak tolérance bi nan la ko dooma kii man a amee ci kii te lépp sutura rek waaw waaw mooy nii ni jëmm jëmaloon ni ci kaw mu nur maam jëmm ji la ñuy wax kaw kaw jëmm ji nur woon nag kaw kaw waaye nit ku xam adduna la ci biir waaw na ni mu seere yoonu murid ba dem boole kër jullit yépp ñuy benn mm-hmm. ah, mu kenn ku ci nekk mu jëlante ak yow maam jamono ji dañoo soxla jamono joo xam ne nit ñi ragalatuñ kenn waaye da ngay fexe ba ñu rus la mm-hmm. na ngay fexe ba ñu rus la nag ñoo doxe ak ñoom la mm-hmm. waaw maa ngi fàttaliku ko a woo suñu Abdou Al Amin mi téléphone. Mm. daan na ko namm naa la lool de bëgg na ko fa ñëwal. Mm-hmm. waaye ci orma ji mu ne ko namm naa la lool de mu ne ko moom kay moom doy ba ca beneen yoon mu ne ko namm naa bi ne ko sëñ bi ba ma namee tey maa ñëw mu ne ko loolu laa bëgg. <laughs> macha allah. waaw te ne woon ko ñëwal yi day ñëw ko ñëwal day ñëw. Mm. mu ne mu ne ko loolu mag. Mm-hmm. yaa ma mag ñaaraat. Mm-hmm. sama kilifa nga sañ nga maa woo boo bëggee ma ñëw te maa ñëw. Mm. ca la sëñ Abdou Senior moom it nit ko yàlla jox cër la waaye ca la jóge mm. maanaam du am ñetti weer yu ñëwul ci seen bi fu mu man a nekk kër ngaan nag mbàkk ko yoroog fu na ko fa. Mm-hmm. Mm-hmm. def ñu ñun ñi comme ak njabootam. am nañ ñu fa demoon njaboot gi mm-hmm. waxtaan ak moom ba noppi mu ne leen mu jàpp ci loxol kii jàpp ci loxol kii ne leen jàppante leen daal man ah, ñun euh, ay mag lañ. yéen a fi des ëllëg ñun saxaar gi rek lañu xaar mu ñëw waaye ñun suñu àdduna jeex na ba noppi. ñu ci gaar bi xaar waaw nga xam ne njàng njàngale yooyu ñoom am na maam fi ñu doon gisee. Mm-hmm. boo yàggee topp seen i wax ak di diglu. Mm-hmm. maam day am solo ci yow yow mii ndaw di nga xam ne teg sa tànk. Mm-hmm. waaw moom daal yàlla na leen yàlla yàlla fay waaye leen nekk ci ñoom lépp daal. la kenn mënu koo wax. waaw kenn mënu koo wax lépp waaw. jërëjëf sëriñ Cheikhouna Mbacké tey moom xam naa ne am naa lu jafe lool <laughs> trois minutes la waxoon mujjee naa bokk ci waxtaan bi waaye sëñ Sidi Mokhtar moo ni moo ni demee euh, xam naa ne ñi mel ni man ñu bari ñu koy déglu. bëgguñu sax waxtu wi gaaw a jeex ndax tellement ñu ngi jàng ci moom bari na loo xam ndax wax dëgg yàlla umpale woon nañ ko ndax ni mu ñagee woon boppam ni mu suturaale woon boppam ci lépp nëbb yu baree bari ba xëy na jaam ñi jaam xamuñu ko tey euh, ginnaaw sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké lan nga jàpp ni taalibe yeeg jullit ñeeg képp ku bëgg a tegu ci yoon wu baax moom nga moom nga war a jàpp sëñ ji waaw maanaam loolu moom mooy euh, nit ku baax moom liñ koy liñ koy doyee mooy jariñoo ko jëriñoo ko mooy fexee nekk ci lam nekkoon fexe jàng kan mooy sëñ Sidi Muxtaar nekk ci lim nekkoon ndax ku koy roy ku nekk waroo bari wax waroo def fu ñu génn fekk la fa wax naa ko ci njëlbeen ga danga war a nekk nit koo xam ne dangay tënku tënku tënk buñ ñu ko waxee mooy tënku ci diine li njëkk mooy xam li nga war a xam jamono ji dafa jaxasoo te loolu mag ngi teela nañ ko préparé maanaam xamoon nañu jamono fii la jëm moo tax ñoom ñuy tàggat seen bopp tàggat seen njaboot jamono nag fii mu jëm da ngay gis ko sopp nit lool bëgg ko euh, sopp ko lool waaye nag boo doon xool moom moom mi mu sopp bu doon bu amoon fukki jikko sax jëlul ñaari jikko ci moom mm-hmm. te loolu nag maanaam nit boo ko soppee la nga war a njëkk a def mooy teg ko ci sa kanam mu nekk seetu ci sa kanam nga xool ci lim nekkoon nga nekk ca mooy gis naa ni sëñ bii di sëriñ Sidi Moxtaar ku maandu la woon ku ragal yàlla la woon ku dal la woon ku dëddu àdduna la woon tamit ndax euh, ñi ko xam ñëpp bi mu nekkee sëñ Tuubaa lenn lu yees lu mu dolliwaat ci jëmmam wala lu dolliwaat ci këram wala lu dolliwaat ci ci ci ci ci ci loo xam ne daan danga naan li mu toog sëñ Tuubaa ko indiwaat loolu amul. man lal ba mu daan toog. mbokk mm. na ci li ma gën a jàpp ci moom. Mm. soppeekuwut. waaw lal bi mu daan toog kër ngan na ak foofee nag lu ne xew na fa tamit gis nga foofu euh, nit ñi seere nañ ko ba tàyyi tàngoor ba jàpp ko ba mu am nu mu demee am na ci yoo xam ne duñ mën a wax lépp loolu moom waaw maanaam ngir aw tàngoor daawut ndong fi ni ventilateur boo ko taalee da ngay bàyyi ba mu jóg bala moo ñëw fekk nga taal ko am na image yu bari yoo xam ne bu génne da nga gis dafa mbuum yéeri bi dafa ñaq ñaq ñaq ba da ngay gis ni dafa ñaq bay seet ñeemu woo taal ci kanamam. mu koy gis daan la fayal. kon am na ci loo xam ne mën nañ koo waxal kilifa ngir rafetale ko ginnaaw waaye sëñ Sidi Moxtaar li mu doon dund. fekk kook moom keppaar mënoo ko xam. te li gën a yéeme ci kilifa mooy xam nga am na nit ñi am na ci ñu bari ñoo xam ne seenu ragal yàlla. dañoo bëgg ñu naw leen ci. xamuñu sax ni suñu borom lañ ko seqal te daf leen a war seen diggante ak suñu borom waaye tagg gañ leen ci tagg tax ñuy ragal suñu borom. waaye koo xam ne bari na tiraanga joo xam ne yët nañ la ko te nga koy gis nga ko joxe bari na ay kilifa yoo xam ne tiraanga ju ne yónnee nañ ko te bi mu ñëwee laata bi ñu ne ko mi ay oto yoo ne oto yu seer a seer la bi ñu ñëwee dañ ne oto bi kat sëñ bi nanga ko fi andi ah, nu mel ñu ne couleur bi nii la mel ñu ne yëtal leen ma ko diw hmm. def na ko ay yoon yoon nga xam ne teraanga yemay maye sax du ko gis loolu lépp dëdd àddunaaw dëdd àddunaa ko tax mu def ko hmm. kon nit booy roy sëñ Sidi Muxtaar li war a jiitu ci yow mooy danga war a fexe ba àdduna génn ci yow war a fexe ba yaatub dënn war a fexe ba mën a maslak ñëpp mën a fexe ba mën a yar sak njaboot ba ñu tënku ci diine lislaam fexe ba maandu fexe ba jàng sa diine ba xam ko noonu la ñuy noonu lañuy ñuy noonu la ci jëmm jooju bu a toog fenn maa ngi fàttali benn année boo xam ne dafa ñëw Euh, belal doomi sëñ sëñ Abdoulaatum sëñ Touba mu am benn dëkk bu mu sanc fële ci wetu Touba ñu koy wax belal mm-hmm. mu dem siyaare ji ko bi mu ñëwee siyaare ko sëñ Abdoulaat mel ne dañ ko woowaat tuubaa ngir am ab dayra bu doon siyaare si sëñ Abdoulaat ne ko toogal ma dem te ñëw mu sukk foofa mm-hmm. ba mu sukkee maanaam am loo xam ne mi ngi koy matt waaye xalaatutu sax yëngutu bi sëñ Abdoulaat demee ba ñëw fekkaat ko fa nga xam ne bàyyi na ko la man ñeent waxtu la juróomi waxtu yoo xam ne bi mu départe ba ñëw dana ko seex ah dangaa demut mu ne ko ah da sama kilifa te fi nga ne ma woon toog fi kat sañu ma fee jógee te amu fi amu ma ndigal. foofu foofu la nekkoon. ñaari mooy njabootuk sëñ Tuubaa gi daana jëflante ñoom benn façon jëflante boo xam ne. mboolem entourage bi wër jumaa ji. Mm. daw fi sol mbaxam daw fi sol dàll. Mm. ngir wormaal sëñ tubaa jëflante woon ak Serigne Saliou benn façon jëflante boo xam ne nag am na loo xam ne kenn mënta wax lépp waaye addiya ci njabootu sëñ Touba lu ko mënoon na joxe la ku fi masa nekkal sëñ Touba lim daan béyee saq yim daan béyee kër ngan ne yëpp ba fii may wax yow ki fi nekk xalifaam di sëñ Moustapha mi lay def luñ fa mën a bayee tool ba lu mu rëy rëy ki fi nekkal sëñ Touba moo koy moom mm-hmm. kon ku mën a joxe woon addiya la waaw kon mm-hmm. ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom bi nga xam ne dara tawu ko mm. jëf yooyu mu doon jëf yépp yàlla nañ nangu jëf yooyu tey soññiwaat ndaw ñi ñu xam ne àdduna bi jeex na ba noppi mm. te dafa am loo xam ne boo ko amee ñàkk ñàkkoo dara mm. ndax fa nga koy wute ji mooy mujj ñëw ci yow ndax gone gi jàpp ni wuti alal ci réew ma ay pexe yi tax mu man koo am dugg gaale tax mu am ko rey nitee tax mu am xaalis tiriyaane nitee tax mu am xaalis dugg ci business di ndax nit yi tax mu am xaalis de dëkk nit saa bu nekkee ci ni war a nekk mm-hmm. yàlla ci boppam moo koy moo koy suturaal mm-hmm. wa man yattaxillaahi yaj'al lahu maxrajan mm-hmm. wa yarsuquhu min haysu laa yaxtasibu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa yàlla nee na képp koo xam ne ragal nga mat a jaar fa nga war a jaar danaa la wërsëgale ba wërsëgale lu kawe sa njort waaw kon loolu rek la ndaw ñi war a teg seen tànk te jaamu yàlla te sàkku ji xam-xam surtout jàng jàng jàng xam-xam ba xam li nga war a xam ndax am na ci loo xam ne nit a ko war a xamal boppam. yow mii kat bu añ jotoon nii. Euh, doone damay xaar sama sëriñ. da ngay añ ba suur da ngay naan ba màndi gis nga ni an añ nekkee fardu laay ni noonu la farata maanaam say farata ak li nga war a xam noonu la nekk fardu laay ni kenn du la ko xamal. julli bu jotee da nga war a dem julli sa bopp. na julli na nga war a defee julli nga xam farata ya. farata njàpp farata julli. baxda salaam xabla salaam bu julli ko yàqu nga mën ko def maanaam li ñu naan al al maanaam xilmu sahi maanaam xam-xam bu wér mabniya ala ilmi sahi wala adabul mardiya maanaam nga am xam bu boo xam ne dalee leer na yow mi bu julli yàqu boo doon commerce la ca jaadu da koy xam bu dem sëy la ci jaadu da koy xam bu dem passé la ci xam loolu lépp détail la yoo xam ne bu nit ko amul xam-xam fu ko neex lay fase heure bu ko neex lay fase xamul heure bi xamul ni sax buy fase nit seede yi dañoo war toog même bu doon génn asaka xamut période bi mu ko war a génne kon xam-xam mooy orienté nit ba nit ki ak dundam mën a ñoŋ mm-hmm. kon ci domaine yëpp nit ki war naa mën a gëstu xam-xam ba am xam-xam bu wér jàng fiq mm-hmm. jàng mboolem fànni xam-xam yi ba diineem du ko mos a loolu nag dafa tumuranke ci ndaw ñi mm-hmm. ndaw ñi léegi daanaka ñi ngi wut yeneen métier tey koo ci dajaloon ni ko lan mooy farate julli du ko xam ab jullit day def yëfi jullit ab jullit day comporté comporté woo comportement ab jullit ba nga xam ne tey luñ ko laaj ci mbiri diineem dana ko man a wax te li ci jiitu mooy man a jullil sa bopp ba bu jullit yàqu nga man koo defar boo demoon ca marché ba tey ni ngay jëndanteeg nit nga xam la ci yàlla digle natta asaka nga xam ni ko yàlla digle ba ci miiras parce que boo amul yar doo duñ la mën a orienté doo mën a am éducation bu baax ci loolu mooy ñu fexe ba yar xale yi te di leen jàppale rawatina kër yi ni mu jaxasoo rawatina doomu bàyyi dëkkandoo yi ni ñu jaxasoo te suñ boroom dafa ni ma ko mën a waxee eh, moom jàppoon na jàppoon na loo xam ne jàppoon na ni jullit ñëpp danañ ci tënku mooy innamal mu'minuna ixwa monde bi li ñu yër yaa ayyuhan naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila shu'ub wa qabaa'ila monde bi la li taarafu taarafu mën ngeen ngeen ngeen xam ngeen xamante kenn ku ci nekk xam sa morom maanaam xamante boobu monde bépp la ko suñu borom sant ngir ñu def yitte ngir xamante mën a jàppante ngir solution man di am nit ñi dem ba waxuma la sax ñuy jàppante ci ay monde ak ay ngir yu bokkut waaye dañoo dem ba biir famille yi war a jàppante sax dañuy am problème yu rëy yenente woon jàmm seen biir mm-hmm. kenn ku ci nekk bëggoo sa morom tekki sa kanam te yooyu yëpp wax dëgg yàlla bëgg àdduna doo koy waral moo tax nit danga war a nekk régulateur boo nekkee ci kër jiite famille lu mu metti metti nekk régulateur maanaam nekk kuy jubbanti nekk kuy jubal euh, ndax nit boo ko jiitoo li nga ko gën a bëgg maanaam tey bu fekkee lu ñuy xëccoo yàgg ko gën a bëgg tamit mun a fexe mu jox la cër njiit yi tamit war nañoo nekk ay modèle maanaam njiit bu la yàlla jiitalee mm-hmm. mooy ñi ñëpp seen taxawaay ci yow la war a nekk yaa leen war di dimbali yaa leen war di lijjal seen soxla bu ñu lajee bu ñu jaaxle bu ñu jàqi lépp yaa leen war di lijjal te boobu taxawaay la Serigne Cheikh Sidi Mokhtar amoon ci biir njabootu euh, Serigne Touba bi mu nekkee xalif bi mu nekkee xalifa ndax loolu lam ko lam lam la la sa wax ji euh, la ko dalee ci njabootu Serigne Touba gi amu ci kenn koo xam ne man nañ ni xool na ci njabootam ay doomam wala ay sëtam wala ay seexam mu yóbbu leen boo demee ci njabootu sëtaat sëti sëñ Tuubaa yépp tamit noonu la jëflanteeg moom taalibe yi noonu la jëflanteek ñoom mooy wan leen yoon wi nga xam ne ku bëgg boole noonu ngay jaare sëñ bi ci loolu loolu la nekkoon ñaareel bi mooy euh, kenn ku ci nekk xamoon na ni nit ku nekk yitti bi mu war a def ci maanaam boo mbokk maanaam jokku mbokk yitte bi mu ci war a def daana ko jàngale daana ko dénk nit ñi daane daana ko daana ko doxee tamit ngir nit ñi bëgg ñu gis ko mm-hmm. ñi mu bokkal sëñ Bara tamit noonu saal bi ma lay wax te di ci dellu siwaat yóbbu na fi ay groupe bi groupe bi quarante cinq personne cinquante personnes cent personnes chaque année mu ñëw gunge leen ñaanal leen ñu dem fii fii fii nga nekk ni foofu noonu la ko daan defee kon moom ci loolu la nekkoon loolu la daan yare ak njabootam loolu la daan digle bi mu nekkee ci ci ci ci jal bi tamit mm-hmm. euh, ay discours am ñëpp déggoon ko boole tarixa yi moo nekkoon moo nekkoon yitteem jàngal leen ni ñu war a mel jàngal leen ni ñu war a comporté woo jàngal leen kenn ku ci nekk diine ji benn la kenn ku ci nekk moom moom xaj amutoon xaj amutoon seen xam naa ne mooy doon laaj bu mujj bi ndax ku ne xam na Sénégal itam kilifa diine yenn saa ne ni ñuy jaxasoog way politique yi hmm. ndax bu uh, réew mi am na fu muy toll dañuy ñëw ci ñoom am na yu bari yoo xam ne itam mënuñu cee bañ a diisoo ak ñoom hmm. uh, sëñ bi digganteem ak woy politique yi moo xam ñi ne woon ci pouvoir bi wala ñu ne ci opposition bi naka la demee woon naka la ko daan gérer. waaw laaj nga laaj bu am solo nag laaj boobu dana aaje taxaw seetlu tuuti ak jàngat. Uh, ñépp lañ daan ñëw ci moom waaye gis nga nit model dëgg koo xam ne da nga war a nekk modèle doo xool kuy ñëw ci yow maanaam yow ni nga mel ak ku ñëw ci yow lan la war a jàng ci yow loolu mooy li wër li mooy li njëkk loola nag boo boo boo xamee loolu ba noppi kii ñëw ci yow moo xam ci politique bu mu mën a indi pouvoir la bokk wala opposition opposition comme mm-hmm. ci mën di doon li muy indi ci yow du la jaaxal ndax yow fekk na nga mel ni nga war a mel ba noppi loolu mooy lan mooy kilifa diine taxawaayam dëgg ci fànn bu mën di doon mooy kii ñëw ci yow dafa war a am lu mu jàng ci yow warut a la lu bees warut a ñëw andil la looy jàng ci moom maanaam mooy dëgg gi mu nekkoon te doon ko jàngal ñépp mooy ki su fekkee ki kaw a gi genn dëgg googu moom la yoral président de la république moom la yoral ñu bokk ci opposition bi moom la ba yoral keneen moom la yoral keneen moom yoral keneen ku mën boo ñëwee la mu war a séq ak yow ci dëgg moom la lay wax loolu ñëpp xamee ko ko moo tax li ma ma baamuwaat ko mooy kilifa buñ mën di fekk si war nañoo fekk nga jatu mooy nga jekk jatu mooy mooy nga jekk ci sa bopp ba nga xam ne bu nit ñëwee ci yow doo am lu bees lu muy indi ci yow yow li ñu fekk ci yow moom la ñuy jàng buñ demee moom la ñuy yóbbu mooy ñoom seeni wax lu nar a jaxasee àdduna duñ la ci yóbbaale mukk su ñëwee lépp loo xam ne indi nañ ko fa da nga gis ni lii dëppoowut ak diine dëppoowut ak lu gën ci réewum Sénégal noonee nga leen koy delloowaatele won leen li nga xam ne moom la yàlla digal won leen li gën ci réew mi moom na doon doxeek mboolem ñi nga xamante si ni ay politiciens lañ te daan ñëw ci moom ñoo xam ñu bokk ci fànn gii moo xam ñu bokk ci fànn gee noonu rek la doon jëflante ak ñoom noonu la daan jëflanteeg aussi yeneen kilifa diine ndax sànq Serigne Cheikhouna wax nañu ci ku mel ni euh, Serigne euh, Abdou Aziz Sy Al Amin euh, ni mu demee woon ak moom yeneen këri diine yi itam lana doonoon seen seen seen diggante. Hmm. loolu loolu li nga wax ni eh, dama ciy ñëwaat bu baax maanaam Serigne Abdou Aziz Sy Junior maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla suñu boroom jéggal ko te xare ko àjjana te jëfam nangu jëfam ci lu baax nangu jëfam ci diine. noonu yi nga ko waxee rek noonu la amee kër sëñ bi dafa waxoon ni dafa bëgg tarix yëpp nekk benn loolee maanaam waxu ko nii da koo jëf ci biir maanaam da daa nekk loo xam ne da koo jëf ci biir am na ci lu bari loo xam ne moom daa wutoon délégation spéciale boo xam ne du jëlal weer wenn weer wala wala wala wala weer wu nekk dana dañ leen dana dem ñaari yoon def tuur ci biir kilifa yi nekk kilifa diine yi nekk biir senegal yépp ñii ay jokkalantey wax la lii ay addiye la lii ay sant la lii lu loo xam ne da ko war a yëkkati jox leen ko te noonu tamit lay jóge ci yeneen kër kilifa di nii di jëm ci ñoom maanaam mooy dafa amoon rapport bu dëgër boo xam ne moo doxoon seen biir ñu koy dox di ko wax di ko jëf foo ci mën di dem nag ci tariixa boo ci mën a dem loolu lañ seqoon ak sëñ Sidi Moxtaar jëflante jëflante bu xóot boo xam ne maanaam ña fa daan dem xam nañ lañ fa daan jële xam nañ lañ daan fa lañ daan fa yóbbu kon rapport bu xóot boobu la ñu seqoon maanaam toogutoon rek wax ko mm-hmm. buñ toogee ba mu yàgg ñu gisee wala bu événement amee ñu gisee déedéet sëñ bi da ko doon dox weer wu weer weer weer wu nekk ñaari yoon jàpp ñetti yoon mm-hmm. dana wut délégation bu dem ci ñoom mm-hmm. nemmiku leen toog waxtaan ak ñoom diine ji gën a nekk benn lépp gën a nekk benn ndax yoon yépp ci yàlla suñu borom la jëm te ñoom ñooy dirigeants yi ñoom ñoo war a fexe ba di jëflante loo xam ne bu ko taalibe yi gisee tamit mën a roy ci loolu. Mm. jërëjëf sëñ Jidi Mbacke xam naa li ñu war waxtaanee waat ci moom bari na lool waaye lépp xaju ci euh, xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoog nii ñu doon déglu. jërëjëf soxna Fatou nañ bu baax ci waxtaan wi ni mu yaatook euh, yaakaar ji nga xam ne am nañ ko ci daan yàlla bu ko yàlla tas. Mm-hmm. te yàlla nañu yàlla gën a dolli dimbali. Mm-hmm. Euh, seen kii bi de réew mi réew mi TV la. FM waaw réew mi FM rek yëpp yàlla yàlla sottal seen i mébét. lii ngeen def tamit wax dëgg yàlla lu am am solo la ndax xam naa ne waxtaan yii ngeen ci am. néewaay na télévision wala rajo bu koy am. kon te yaakaar naa bu ko ñu bari déggee danañ ko copier si yéen ndax ñu ci bari sax maanaam duñ di nangoo di wax ci moom ndax moom loolu gënalu ko. waaye comme sama boo booleeg yéen. Mm-hmm. moo tax rek ñu yaatale ko nii. Mm-hmm. kon nag yàlla mottali na seen yéene ndax ni ngeen ko bëggee woon yaakaar naa amee ngeen ko noonu ñaan yàlla suñu borom mm, luñ ci juum tamit ñoo ngi koy jéglu te xam ne lu baax rek lañ ci jublu mm-hmm. di la ñaanal yow mi nga xam ne tamit mm-hmm. yaa ñëw jël si waxta waxtaan wi mm-hmm. sa taxawaay ak sa yéene ci biir diine lislaam yàlla na ko yàlla mottali li nga bëgg ak li nga wut yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal allahumma amiin amiin sëriñ Jili Mbàkke moom lañu doon waxtaanal euh, ci sëriñ Sidi Mokhtar Mbàkke xam ngeen ne weer wi ñu nekk fukki fan wala juróom-ñeenti fan ya ca weeru euh, janvier atum 2018 euh, ci la sëñ bi làqu woon nekkatu fi nag waaye mi ngi fi ba tey kon jaadu na bu weer wi dellu si bës yooyu dellu si ñu profitoo ci waxtaanee ko ndax xëy wax nga ko tàggoo ma mën am du génn tey waaye nag waxtaanee ko itam baax na ndax dana tax ñeneen dégg ci euh, fàttali dafay jëriñ jullit xëy na dana tax ñenn ñi fàttaliku yenn yi ndax li nga fi wax moom sëñ bi génnul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon yàlla nañu yàlla may ñu mën a dégg bu itam yàlla nañu topp di la gërëm bu baax a baax gërëm sëriñ Basirou Thioro Mbacke mi ñu boole ak sëriñ Ahmed Saloum Dieng euh, gërëm itam sëriñ Cheikhouna Mbacke di sët ci sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke dégg ngeen ko sànq ci biir waxtaan wi ak participation bu am solo bi di la gërëmaat yow itam gërëm ñu doon déglu di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel euh, jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendoog jàmm